nit ku ne mën nga seede li sa yaay def ci yow waaye yokk naa si ne seede naa it fi ma sama soxna féete te loolu góor bu ne war na ko mën a wax yokk naa si ne jigéen ñi nga xam ak ñoom muy yéen naa seen taxawaay ak li ngeen def ci man ba ma nekk fii ma nekk tey kon jërë ngeen jëf